yoon gisee tegtal di ngeen xam ne kii ku ràññeeku la ci mbir bi kooko di kan Serigne Bassirou Ndiaye soppe na bi bay wuyoo numéro un sëñ Bassirou Ndiaye borom croisement Kër Massar sëñ Bassirou Ndiaye borom Kër Mbay Fall sëñ Bassirou Ndiaye borom Touba fi jàkkaarloo kër sëñ Aboom sëñ Fallou sëñ Bassirou Ndiaye euh, borom àdduna nag nga xam ne que fépp lay dem ci àdduna bi ci ngir fesal xam-xamam fu mu demul tamit résultat am fekk na ko foofu sëñ Bassirou Ndiaye. yaa ngi ci Tektal TV ci sa émission tegtal looy nuyoog àdduna wërngal këpp ginnaaw bi ñu la seetaanee jamono jii nga yëngal niveau bi aj ko ba mu gën a kawe ba jëkk bi dëkk bi yëpp di commentaire ci sëñ Bass ñu amaat la indiwaat la nga ñëwaat tey nag nga ñëw sol loo xam ne que macha allah ab ab sëñ Bass nga solati daal <laughs> moom laa soloon nga sol ko. <laughs> sëñ Bass di daal looy nuyoog ñëpp. a billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. wasalaatu wasalaamu ala sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam ginnaaw ba ñu santee borom bi subhaanahu wa moom mi yeeyoo cant di julli ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallam di sant tubaa Tuubaa xaadimal Mustafa di ñaanal sama sëriñ ba sëñ Muntaxa mu sëñ Basiru Mbàkke di sëriñu ñëpp di ñaanal sama soppi sama xarit ba sëñ Amsa mu sëñ Cheikh Mbàkke yal na ko yàlla may wér ak gudd fan ñu ko ñaanal sëñ Abo Mbàkke mu sëñ Falulu yàlla may ko wér ak gudd fan di ko ñaanal suñu addu karim Mbàkke yàlla may ko wér ak gudd fan di ko ñaanal njabootu maam Cheikh Ibra Fall gi yëpp di dugg nag ci kër tarixitu waliwu Kamal yëpp moo xam fu kër tarixitu Tijaan yeeg murit yi xaadir yi laayen yeeg ñasen yeeg ñëpp rek képp ko naan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah sallallahu maa ngi lay ñaanal yàlla may la jàmm yàlla may la wér ñi nga xam dañoo dem wuy ji seen borom yàlla xare leen àjjana jéggal leen seen bàkkaar ñi nekk ci ay xat nekk ci prison yi yàlla jëlee leen fa ña fa dugg seen dëgg yàlla jubbanti leen ña ñu mm-hmm. tuumaal ba duggal leen fa yàlla may lu xolum muñ te yàlla buñ fa duggaat ñu fa génnee mm-hmm. te yàlla bu kenn duggaat di ñaan nag ci eh, maanaam jamono jii ñu toll muy dëkk bi dafa xaw a tàng tuuti mm-hmm. moor yi xaw a bëri blessé yi bëri présidentielle yi ñu génn ñu ñaan suñ borom bi eh, eh, def fi jàmm ci réew mi rek def ko ci àdduna bi yëpp di ñaanal tamit suñu waajur yi waaw ñi dem yàlla xare leen àjjana ñi fi ne yàlla yàggal leen fi lool te may leen wér seen ñaan yàgg ñëw ci ñun di ñaana tamit soxna yi ci kër gi hmm. ndax tey góor bu setee wala mu jag ci colin gi ci ci wàllu service loolu lépp ci soxna yi la euh, ndax ñoo yore kër gi góor mooy joxe góor mooy woddu góor mooy téye góor mooy muñale <coughs> mais jigéen mooy àggali kon nag soxna yu baax yi dañ leen di nuyu kon nag ma tàmbali ci samay soxna soxna maam Maram Cissé maa ngi lay nuyu soxna Seynabou Silla maa ngi lay euh, nuyu yàlla na yàlla may leen jàmm ak njaboot gu barkeel yàlla bàyyi leen ak man yàlla bàyyi leen ak man loolu laa leen di ñaanal yàlla def jàmm ci ñun njaboot gi tamit yàlla teg leen loxo bu baax jàppale leen taxawu leen ba seen jàng arxuraan bi seen njàng nasaraan gi yëpp suñ borom bi jàppandil ko ba lépp lu lu mu bëgg sama njaboot ak njabootu jàmbur gi yëpp yàlla def ko ci ñoom mm-hmm. di ñaanal nag Tektal TV di télévision bi nga xam ne nii mm-hmm. télévision laa koy tuddee rek mm-hmm. ndax télévision la yaatal na dimbali na tettal na nit ñi yoon bi yàlla na yàlla mottali yàlla may li ci ndam def ci sutura sàmm la sa noon yi bañ ci mën dara muy sa émission yëpp bu ñu xoolee ci commentaire yi dañ ciy gis lu rafet ak lu baax du ñëpp nag ñoo mën a apprécier li seex di def hmm. ndax sëñ bas bu defoon tey émission dina am ay junni nit ñoo xam ne nii wala bokk lu ko jege mën nañoo def seen i commentaire maanaam téeméer boo ci jël mën naa ne quatre vingt dix personnes yëpp wala quatre-vingt-dix-neuf yi lu rafet la ñuy wax hmm. mais du ñàkk benn benn yi nga xam ni euh, seytaane moo leen mën hmm. wala sëñ bas neexu leen wala bokk euh, noonu la yàlla defee seen i jikko waaye nag yonent salaa salaam dafa am lu mu jàngale mooy ab màndu màndu te day dimbali nit màndu te day defar doomu aadama mandu te day tax bu ëllëgee nga mucc sañ seex te c'est important pour nit ki mën ko xam ndax loolu rek yoon yon salaa salaam jàngale na ko dañ ko arxuraan a jàngale na dañuy wax ni nit ki dañ ne dëmm ndax am na wala amul hmm. ñu waaw dëmmu am na ñu jàpp ne nit ki mooy lekk moroomi nitam waaw loolu am na ni mu amee mooy nit ki nga xam ne ne dala romb mu sol mbubb mu gàttam mu gudd nga wax ci sa yónnewu ca wala nit ki nga xam ne ni tey da da nga ko jëw mu génn ci télévision wala ci site internet yi mu génn nga seetaan ab filmum wala ak communication dara leeru la wala dara leer na la loo ca wax rek ci lu ñaaw ci lu tey amul teggin ci lu rafetul rek mm. dafa mel na ni jëmm jooju ngay tudd ca la mu wax wala nga koy ñaaw di ci commentaire lu bon wala lu ñaaw dafa mel na ni ci jëmm jooju dangaa jël ci yàpp yaramam nga lekk kon na ko mboole mu doomu aadama yëpp xam ndax boo nee julli ji rek du julli ji ñoo nekk ci ñooy commentaire wala du julli ji rek ay wax kon àdduna bi yëpp ñu jàngal ko nit ñi c'est important pour ñu jàngal nit ñi ci loolu. Euh, ma bàyyi la ñu def suñu waxtaan bu am solo tey ñu fas yéene waxtaan ci li nga xam ne ni. danga ko mm. mottali ci nit ñi ci communication bi ngay joxe. Mm. pour nit ñi mën ko xam bu baax. Mm. ñu jàng ci jàngat ci. dimbali ba pare am ci ndimbal goo xam ci yàlla lay jóge ñëw ci ñun. macha allah. jërëjëf kooku mooy euh, Serigne Bassirou Ndiaye na bi booy wuyoo numéro un nekk ci croisement Kër Massar fi jàkkaarloog pont bi booy génn Dakar mu di la féete droite sa droite mbedd boobu rek biñ table bi ñu bind cité Adja Marème Diop. Hmm. foofu la boo doxee lu tolloog deux cent mètres rek kër gi am porte yu verte ñu koy pentiraat rek noonu la mel wala kooku laaj mu wax la kër ga bu dee Touba la vingt huit ans Touba vingt huit. Touba 28 waaw ci tali bi jëm jumaa ji tali bi jëm jumaa ji mm-hmm. kër fi mm-hmm. ba alxamis ci ngoon déedéet alxamis laa fay nekk jeudi ba jeudi laay recevoir daal jeudi ba jeudi waaw àllarba ci guddi maa nga fa fa laay fanaan ci mm-hmm. kàttanu yàlla alxamis ma xëy jël samay nit dimbali leen jàppale leen ba ngoon jot ma delluwaat ci ndakaaru ñëwaat ci sama liggéey àjjuma bi Mm. ci laay fas yéene tëju noppalu. nekk samay mbiru bopp. Mm. samedi bi ma xëy nekkaat samay activité si samay mm. euh, maanaam nit ñi nga xam ñoom la yàlla boole ma ak ñoom ñu war ma seet si. sëñ Bassirou Ndiaye tey da ñëw ne tekk dal oyof ne kii. moo euh, affaire bi xaw ma jaaxal te fan yii da ngaa ñëw yëngal dëkk bi ba dëkk bi saxaar tey nga ñëw ne teg xët fi ndox mu sedd guy léegi émission bële dafa doonoon ñaxtu ñaxtu ba jeex yow te munoo taal pono munoo kii nga wax li la metti mu jeex benn yoon wala ah, nga pare ci tey nga ñëw dal te teg ci tamit sa xeex bi moom am na njëriñ parce que gis nga ne jot nga ci retour ñu ñu bëri ñu yënguti ci médecine traditionnelle ñu dooni sëriñ kontaan ci sa message kontaan ci li nga wax ànd ci yow ba nga mujj ne sax yéen doon ngeen benn léegi. waaw sëñ Seex yàgg nañoo doon benn dafa am ñu ci bokkul woon ñoo xam dañoo bëggoon ñu doon wàlliyaan doon nañ ci. Mm. Euh, li wolof njaay di wax rek euh, ku yàgg si teen rek ba fekk la fa c'est important pour nit ñi xam loolu émission bi foofu mu def njëriñ ci ñun ñëpp ci médecine tradipatien yëpp ak euh, médecine ñi nga xam dañuy def war tamit wàllu xam moderne ndax li tax mooy tey ji hôpitaux yi boo demee ci hôpital yu mag yi principal wala nga dem femme rek bu ñu amee problème muy yenn hôpital yi nga xam ne état bi da cee war a dof loxoom. ak euh, ak dooleem. su manqué foofu ñu ñaxtu wax. Mm-hmm. dañuy toog ci surno yi ñu koy jàllale ñuy wax ñun dong ñoo fi nekk ñoo xam ne nii dañuy dañoo woyof ndeysaan. dañoo sedd lewet. dañoo am la biir dal. Mm-hmm. dañoo baax di noppi di muñ mais toujours ñu gis lu ñu naqati. Mm-hmm. te te te pourtant dañ koy muñ. Euh, li indi loolu mooy foofu faaw ñu ñaxtu wane ñun ci réew mi luñ bokk. ay doomu Sénégal lañ fi lañ nekk fi lañ juddoo fi lañ yaroo tubbaani wuñu dara indi ko suñu biir réew bu fekkoon ne tey jii dañuy dem jéggaani ñu importe ay ay bagages su médecine traditionnelle di ko indi di faj nga xam ne ci réew tubaab yi wala ci réew naar yi lañ ko jëlee bëgg di faj te lépp lu ñuy faj jógewuñ suñu réew gàncax gi jógewuñ suñu réew mais nañu nañ te dëgg su boobaa am nañ droit impôt bi sonal ñu fay impôt yi mais koo xam ne yow xam-xam bi ngay def yëpp yaa ngi koy def ci ci sa xam-xamu bi nga xam ne ni ci sa secret la sa bopp la nekk jël te suñ mhm. bu fekkee dama bind xaatim ma ma jël arxuraan dugal xaatim moo xam niim laa ubbi moo xam dama bind wàcce moo xam damaa galañ bu mu ci mën a doon ba yàlla nangul ma ko sama digganteeg nit ki am naa ci pay bi yàlla am naa sama bénéfice ngir dërëm bi mu yëkkati jox ma mais nañ waxante dëgg loolu su fekkee da nga cee nar a fayeku nit ki impôt dafa mel ni kon internat yi léegi ñu fay loolu leen impôt hmm. ah kay waaw ndax bu fekkee ne internat yi ñuy jàngalee alxuraan di jël ay xale di def ci ñoom xam-xam bu ñu leen bëgg fayloo impôt te état bi taxawu ci ñoom def li mu war def ci ñoom mais bu boobaa euh, euh, ñu yare daara yi di dañuy bañ kon su ñu jël xale yi bu fekkee amuñu mooy ñu leen di yalwaanloo ci mbedd mi hmm. mais bu ñu amee moyen ñu jàppale leen état jàppale leen xale yi duñ dootuñu yalwaan ci mbedd mi dañuy jàng mm-hmm. noonu la demee bu fekkee ne nag lépp nag dañ ko bëgg jël def ko ci wàllu modernes mm-hmm. muy opito yi muy école yi moom la état bi di sonn mais bu dee ci daara yi sonn ci bu dee ci médecine traditionnelle yi sonn ñu ci ndax xamul tax mooy dañoo sol suñu mbubum traditionnel yëri jikkooy traditionnel macha allah yëri bëgg-bëgg traditionnel te état bi moderne la gëm te ñun dañu ay moderne loola tax te yéen njëriñ nekk ci. léegi euh, bu fekkee ne loolu la dañoo am droit toog pour ñaxtu léegi na bu dooree dóoree suñuy émission. ñu mm-hmm. def ko internet bi dawal ko xam ngeen Tektal TV ñëpp di ko seetaan. Mm-hmm. ñëpp bàyyi ko xel. ñii di ko li nit ñi ñu mënut a dem Tektal TV dem ci YouTube bi di ko seetaan. Mm-hmm. mais nañ waxante dëgg. après nu mu def. ak lu ñu ci mën a am nañ ci sant yàlla bu doon 100 pour cent yi lu ñu soxla tey am nañ cent pour cent yi. jàll na jàll na xam nga tax mu jàll. Euh, tey jii même bu fekkee ne état bi deful li mu war a def ñi topp sama ginnaaw ñi ma bëgg ak fans yi ak mhm. bépp koo xam ne médecine tradipassé nga da ngay ñaan rek te bëgg sëñ Bass te nga nekk ci métier bi mu nekk d'accord nga ci li ma wax mhm. ànd nga ak man te ay téeméeri doomu aadama yëkkate nañ seen ay numéro mhm. di ñu ko yónnee par message di ñu woo téléphone di wax ak ñun te ñu ngi leen di apprécier seen i seen i seen seen jëfin yooyu ñu commencé te incha allah rabbi dinañ ci ànd ak ñoom pour liggéey ak ñoom liggéey bu rafet te it incha allah maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi maa ngi fexe loo xam ne ni amatuma lu ma ciy nëbbu. mooy mbooloo mu bari ci góor ak jigéen mag ak ndaw ñoo xam ne maa ngi leen di xëcc indi leen ngir ñu nekk ci sama ginnaaw. ma nekk seen kanam ci kàttanu suñu borom bi ci dimbalu yàlla ñu am doole joo xam ne ni dinañ mën a dem dem bi ñu war a dem. pour lan pour ñu doon benn say. defandoo xàccandoo dóorandoo loolu ñu ngi ci donc loolu c'est important pour nit ñi mën ko xam loolu mooy tey nag suñu émission nii la mën a demee lee dañoo amoon lu ñu métti ñuy wax tey nag dañoo am mbégte ak bànneex goo xam ne ni dañuy wax ak askan bi nga xam dañoo réer ñiy gëlëm ñiy jaaxle ñii nekk ci ay problème pour ñu xettali leen wan leen ci lu ñu yàlla may ndax soxoruñ ci macha allah voilà jërëjëf mbokk yi seetaan seen émission Tektal ñu dalal kii di Serigne Bassirou waxee loolu pare ñu dugg ci beneen mbir boo xam ne que domaine am la miin nañ ko ci yàgg na ci mooy bi nga xam ne que ci lay jël jëbi di ko teg nit ñi mooy ci nga xam ci lay def yenn yi moom nag fajam du xaw a nuroog théâtre dëgg yàlla faj rab xam nañ ko ci sëñ Bassirou Ndiaye rab sonal nit ñi wala sëriñ si sonal rab benn am ci yow noo def ak rab euh, jinne <laughs> faro rab coro rab kuy gént di sëy kuy yàqule kooto bi euh, kër gay tàkk xeet googu yëpp daal rab wax ñu ci tey loolu lu musul dégg sëñ Seex dafa mel ni mm-hmm. nit ñi dañu umpale yàlla suñu borom mais umpale tuñ sëñ Basiru Ndiaye. Mm-hmm. ndax li tax umpale tuwu ko dama ci réseaux sociaux yi tàppe sëriñ rek boo ko defee sëñ Basiru Ndiaye day génn. Mm-hmm. mais yàlla suñu borom bi la ñu umpale ndax yàlla kenn mënu ko gis. te kenn du dégg kàddoom ndax xajul ci nit xajul ci mal ma xajul sax ci malaaka yi nga xam ne sax. dafa am fu ñu yem ak suñu borom bi. waxuma laa nag indi ni doomu aadama yàlla ba mu bindee nit dafa bind jinni waaye bu mu bindee jinne dafa bind ay secret yoo xam ne ay mbindeef lañ te du ay nit du ñu ay jinne te du ay rab waaye ay mbindeef yuy dund lañ mm-hmm. mën nañ ko nangu soo demee mba sànq lañ bi lay romb màttu la màttaanu la amoo droit jéggi ko mu dee ndax mbindeef la day dund am na lu ko yàlla indee ci àdduna mission la ciy dox bu mission pare day dem wuy ji suñ borom mm-hmm. ba ci melentaan bi ak gunóor bi ak mbóot mi bu ci nekk njëriñ la njëriñ googu mën nañ ci for ay ay ay ay ay latif yoo xam mën nañ ko jëriñoo mm-hmm. tey jii boo demee ci wàllu médecine dëgg nga dem ci chinois yi ci wàllu Chine nga gis tubaab yi dañuy jël mbóot fexe ba liggéey ci antibiotique nit mën ko naan te du ko lor mu doon garab ci yow te kenn du wedd li ma wax médecine bi xam nañ ko dañuy jël serpent ñu jël li liquide wexten bi nga xam ne moom mooy maanaam dangar bi nga xam ne jaan bu la mattee dangar boobu di yéeg ba dem ba ca cerveau nga xam ne moo la yóbbu àllaaxira ginnaaw amoo solution bi koy dindi moo xam dañ koy lugg wala dañ koy piqûre wextanu jaan boobu nit mënu ko jël uniquement pour naan ko mais tubaab bi fexe nañ ba jël werteen boobu ah wala chinois yi fexe ba defar ko mu nekk médicament bi nga xam ne sax ba defar ko mu nekk benn ampoule bi nga xam ne bu la jaan mattoon wertaan boobu di yëg ci yow wertaan boobu li ñu jël pikiraat la ko pour wertaan bi wàcc mais xoolal boobu professionnel xoolal boobu gëstu dañoo organisé wu kon loo gis yàlla indi ko suuf muy dund muy mbindeef am na njëriñ ci nit ñi ci loolu lu ñu jàngatee ne ne ba yàlla bindee jinne yi jinne yi dañuy dafa am jinn yi nga xam ne jinne seytaane la mais am na ci doomu aadama yi bu ma nee jinne seytaane yow boo ko weddee weddi sa bopp dafa am ci nit ñi nga xam ne nit nitu seytaane la moo tax yàlla suñu borom bi wax na ni képp ku yee fitna rëbb na la mm-hmm. ku yee fitna rëbb na la mm-hmm. nga image benn mbir euh, nit euh, jinne jinne seytaane mm-hmm. dafa am li ñuy wax jinne rab jinne rab mooy rab bi nga xam ne ni jinne bi moo ko kilifte waxoon nañ ko suñu émission ba le passé avant élection yi di ñëw mhm. euh, benn mooy jinne rab yi jinne rab yi dafa am jinne yi nga xam ne ni ay jinne seytaane lañ ay nóoxóor lañ mhm. ay dañuy dañuy def loo xam ne ni maanaam ci xeetu wàllu yaan li ñuy def mhm. wàllu yaan mooy fekkante xàmmee leen comme par exemple fii nit boo gisee nit ku solo ni nga solo nga njort ne ku baax la boo gisee nit ku solo grand mbubb da nga jàpp ne ku baax boo gisee ku yor kaamil nga jàpp ne ku baax la boo gisee ku ras def njañ yu kii du xëy ni bon da nga ko bon la xeet est-ce que comprendre nga léegi nit mën a xàmmee nit yoo xam na que boo melul nii duñ la ak boo melee ñu wóolu yi nga xam ne que yu sérieux la yan melokaan ak yu sérieux jikko jikkoy ak jikkoy rab jikkoy nit ak jikkoy jinne uutewul ak jëmmam dara mm-hmm. waaw ci melokaan waaw moom laa lay wax mooy melokaan mooy jëmm ji mm-hmm. maanaam nite ak nit bokkul nit dafa am nite di am ci biir loolu ci comportement nit ki ci ni ngay solo dafay fekk da gis koo xam ne ni dafay nekk intellectuel dafay jàng ba pare koy jàngal xamal ko waaye solinam du norme nga gis koo xam ne xamul tous solinam day gën a norme loolu dafa am ci biir lu ñuy wax communication ni ki nga xam dafa mën a communiquer ak papaam mën a communiquer ak sa yaay dafa am communication boo war a mën a defanteeg sa papa ak sa yaay même waajur bi sax dafa am noo ko dañ koy jàngale parent sa tonton bi am na noo koy nuyoo sa mag bi am na noo koy nuyoo mm-hmm. loolu la tubaab di wax discipline mooy yar mm-hmm. yar googu dafa am solo nit ki di comporté moom boo àndee comportement boobu da ngay nite ci colin gi nit ki mën na sol grand boubam yére nga di course am nu mu doxalee waxoon naa ko yàgg naa ko wax ak expliqué ak yow mm-hmm. nga gis ko sa xel du dem lu dul xaaral ma wax ko mu ñaanal ma fekk yow mi koy wax xaaral nga wax ko mu ñaanal la soo moytu sax yow mi yow mi bëgg mu ñaana la yow yaa ko ëpp xam-xam ba pare yaa ko gën a àgg ci yàlla mm-hmm. ndax da gis koo xam ne fookat la day mooy yàlla te dinaa la nettali lenn ci mooy yàlla doo da ngay gàtt fan du sa fan de day gàtt ba pare dee sukuraat bu métti ngay dee ñaar hmm? te wërsëg day dellu ginnaaw bari na ñoo xam ne nii dinaa la leeralal foofu nga may ma benn deux minutes rek après nga wax <coughs> bari na ñoo xam ne lu leen delloo ginnaaw mooy ak waajur ak waajur xam ne nii seddaloo xolom looy def doo ko ko wax ba pare faale woo ko tegoo ko nit te bu waxee nga sànni ko loxo kooku bu seetoon junniy sëriñ Basiru Njaay day sëñ Basiru Njaay day ñaan ba sonni to du am résultat xam lu muy wax danaan sëñ Bas Njaay xamul fekk ni ne moom dafa am maanaam ak waajur bu nekk ci diggante moom ñaan bi gën a gaaw ci doomu aadama gën a am lijaabu mooy xol waajur bu sedd ci doomam mooy même boo amul dara dara yaa reesa mooy na nga jox sa waajur discipline bu mat sëkk bi ci des mhm. mooy nga romb nitu yàlla nga tooñ ko taxamoo ko nga jël bal football dóor ko mu daan wala mu dal ci mbubam wala mu romb nga am noo doxaleeg moom wala nit dawal otoom kay dawal oto bi nitu yàlla la mhm. nga jékki-jékki am num la rombee pourtant moom mën na am benn erreur bi am am na oto buy ñëw am na scooter buy ñëw am na xale buy romb looloo tax mu dawalee noonu mhm. am na benn absente bu am ci ci ci ci dawal bi nga jékki-jékki nga sànni ko loxo eh yow ni ngay dawalee saaga ko xeeta reewoon de fekk yow ka ngay saaga mm-hmm. kilifa waliwu moo toog ci biir oto ba wala ka mm-hmm. kay dawal sa doon moom mm-hmm. loolu c'est important pour nit ka xam ko jàngale lañ ko fépp wane nañ loolu fépp exemplaire bu leer pour nit mën am ci loolu mooy jëlal da nga jël exemple si sa diggante ak sa waajur nan la meloon ak ay waajuram ci communication boo ko fekkul nga xool ni lay waxee bi ci des nga am benn éducation dafa am solo ci nit ki loolu dafay ñëw ci colin gi mais dafay ñëw ci jikko yi c'est important ci wàll ñaan li ñuy waxee rek moo tax may dugg ci benn terme yoo xam ne ni terme yi terme yu am solo lay nekk mhm. euh, maintenant nit ki nit ku nekk tey jii ci sa gis-gisin mhm. euh, il faut nga sóoraale benn affaire boo xoolee tey jii par exemple euh, sëñ Cheikh mhm. dafa am par exemple tey jii mën naa ko jàngale ci diggante docteur bi ak euh, traditionnel bi te loolu toujours dama koy bëgg def ak yow. Mhm. suñuy émission ba le passé. ci jamono yee. te toj réew mi. waaw te yëngaloon réew mi bëggoon bëggoon naa bëggoon naa la bëggoon naa ko ci wax. ma toog benn instant ma ne comme loolu taxu mun jóg sax bëggoon naa ko ci dugal mais ndax dafa bokk ci même communication ba li jàlloon. Mhm. waaye ba tey ma indi ko ci biir rek. ndax ba tey mu ngi ci biir communication bi. Hmm, euh, boo demee ci dangay gis benn dangay gis euh, docteur yi dañuy taxaw kaas ne tradipaticiens yi mënuñu composé médicament. Mm-hmm. déedéet bu ñu waxee mënuñu dañoo boole ñëpp nuun gi nga jël moom dañ naan seen garab baax na yëpp mais dosage la waaw moom laa la bëgg a wax bu ñu mm-hmm. nee mënuñu mm-hmm. ñu ngi def erreur erreur bu rëy xam nga munuñu kenn du ko wax da nga naan am na ñu ci mënul mais kon docteur yi mënuñu man maa ko wax ah bul tooñ déedéet tooñu ma déet déet ah. non bul wax bul tooñ xam nga dañu bëgg waxtaan loo xam ne ni dama bëgg nit ñi bëgguma nit ñi ree ci dama bëgg nit ñi jar ci Euh, non dégg naa ba mécanicien yëpp. non xaar non yëpp jubuñu sëriñ yëpp jubuñu. waa xaaral docteur yëpp jubuñu. ñëpp mënuñu jub so mais ci biir waxtaan bi ñuy waxtaan ñaari fànn yi ñu ñaar ñoo ko ñoo ko gérer. Mhm. mooy médecin bi ak traditionnel bi ku ci nekk da ngay faj waaye dañu am fu ñu uutee kee day faj ci moderne rek mais du ñaan kii nag day ñaan. Mhm. léegi nag fenn laa la bëgg leeralee. Mhm. dañ ne du ñu composé seen i médicament. bu ñu waxee du ñu composé seen médicament loolu du wax da nga naan. dafa am ñi nga xam ne ni amuñu xam amuñu xel composé am ñi nga xam ne amuñu matériel bi ñuy composé moyens yi amuñu ko wala jànguñu technique composé médicament complet léegi bi ci des yow boo waxee loolu man mën naa leen tontu ne leen kon docteur yi xamuñu ndax li tax ma wax ko dema ci hôpitaux yi da nga gis docteur boo xam dafay jël seringue piqûre piqûre ko nit mu rate tànk bi yàqu mu soox ko mu yàqu dootul dox ñaata loolu ay junniy doomu aadama dal na leen. ñu nga xam leen. bi ci des. Mhm. da ngay gis koo xam dafay opérer mu usuwee. opéré bi dafay usuwee si loxo mer médecin bi opéré fekk kii opéré mën na opéré mais yàlla indi ndogal ci diggante moom ak malade bi. kii pikiir mën na pikiir mais dafay essuyer am na ñi nga xam ne nag dañoo jàng formation bi mais defuñu ko seen xel ndax ba ñu jàng formation bi dañ cee boole tappale ak foo bañ leen joxee malade bi ñu pikiir leen wala ñu war leen faj nañ leen war a fajee ñu am ci problème bu ñu demee ba xam leen seen biir dañ leen di seppi hôpital yi nga xam ne ni ay professionnels ay cadres lañ ñu leen occupé nañ leen waxante dëgg c'est important kon mm-hmm. dafa am li nga xam ne ni dama lay leeralal dafa ndax ma leeral moom fi indi. leeral xamul tax. Mm-hmm. fii Tektal TV la mais sëñ Bass Ndiaye spécial leeral la. Mm-hmm. léegi nag ci biir loolu leer nga bëgg merci li waral loolu. mooy ne. mais toll nga euh, ci diggante jinne yeeg. waaw dinaa ñëw foofu laay ñëw sëñ Seex mais dama bëgg leeral lii ba mu leer nañ bismillah voilà donc nañu wax ne ne nañu seet ñi nga xam ne ni dañoo am xam-xam bi nga xam ne ni dañoo am xam-xamu suuf ak xam-xamu kaw loolu la ñuy wax tey ji boo demee ci li ñuy wax tasawuf wala nga dem ci fiq wala nga dem ci xam-xamu restaar yi nga xam ne ni dañuy jàng ci wàllum suuf di jàng ci wàllum kaw boo doon wax ci wàllum kaw ak wàllum suuf mu ngi ci biir diggante jinne yi xuddaam yi ak batwali ñi ndax boo demee ci benn way bi am na benn ñaan gu wax benn mocc boo xam ne nii amul lu ko gën a gaaw ci ki nga xam ne ni eh, jiite ko fett mm-hmm. wala cata ko topp wala rabu ko dugg waaye dafa am siru bi ñu koy boole mi mën naa wax ñaan gi te du mu tudd siru bi ndax secret kenn du ko siiwal mm-hmm. secret comme marchandise bitik ah. bitik boo xam ne dafay jaay li ñuy wax qualité yaa ngi dégg mm-hmm. léegi nag bu boobaa eh, na nga koy mocc da nga naan eh, da nga naan auzu billahi mina seytaane rajim ah. dégg bismillahi rahmaani rahimi mm-hmm. nga daal di def euh, xate fee seytaane xate fee kee fee seytaane kee kee kee taa seytaane anaxum yalax yalax dégg nga loolu mooy pour bu wa ma maanaam soo ko doon mocc dafa am siru mi muy àndal mm-hmm. ausu billahi min asheytan rajim bismillahi rahmani seytaane xate fee kee fee seytaane kee kee fee taa seytaane anaxum taa yalax yalax yalax yalax mooy bàyyi ma bàyyi ma. na fi jóg na fi jóg na fi jóg waaw. Ah. donc soo defee ñaan googu siru boobu muy àndal. Hmm. foo tuddee ñaan gi ñetti yoon dangay ngay dugal da ngay dugal turu siru bi. Hmm. soo ko dugalee day mel ne doñu glace yi sew nga jël di ko def ci yaram bi fi mu doon yëg dulóor sànq sëñ Cheikh bu mu ñëwee na ma ñaana ma sama bopp bi. wax naa ko. Ah. day sedd. ba baa ngi sedd. jeex na bu ma koy wax rek muy sedd. donc nga xam ne ne loolu lépp ay xeetu secret la. c'est important pour nit ki mën a xam lu mel noonu léegi bu fekkee ci wàllum jinne li nga laaj dafa am solo li ñuy wax jinne ak rab ak xuddaama ak badwalin muy muy muy rab mbindeef yooyu yàlla bind ñuy seen i comportement ak seen i jikko baaxul muy xeetu maanaam rab yi nga xam ne ni ay ay yéefar lañ ay seytaan lañ ndax jinne seytaane yi ñoom ñooy ànd ak ñoom jinne seytaane yi ñoo leen di ilif ñoo leen di communiquer ñoo yare seen i commande leen def leen nii def leen nii bàyyi leen nii bàyyi leen ni na ngeen jëfee nii na ngeen jëfee nii seet leen Serigne Bassirou Ndiaye mii ngeen dugg ko seet leen Serigne Bassirou Ndiaye mii ngeen yàqal ko jinne yooyu yabal rab yi rab yooyu doon wàllu yaan ñëw ci yow di la def ngay absenté da ngay gis xale bu góor boo xam ne dafay jàng ba am benn niveau bi dem ba jaar université jóge fa jàng dugg ci yenn école yi commencé def ay formation ba commencé am ay diplôme wala mu commencé am yenn ay dossier ci wàllu côté ci côté njàngam mu jékki-jékki rek mu commencé di absenté imansal mhm. lan lay def day commencé di absenté ca lu mu doon jàng mhm. danaan jàng di téye bopp bi moo daan dem ba nekk comme ordinateur mhm. nga xam day capturer mais pas muy bind di xool léegi passé na sax foo xam ne ni dafay jàng leçon bi ci deux jours mhm. da koy jàng léegi ci une heure de temps mu mu mu ko téye ko mokkal ko léegi nag da koy da koy jox loo xam nu lu gën yomb lay doon mu war koo jàng mu topp ko pendant une semaine yàlla ba un mois du ci xamati dara di fo rek di mel ne du ci xam lan mooy absenté mooy ñëw bëgg na ko mais du téye mhm. c'est important beneen bi ci des nga gis ne maanaam moom mu ngi jàng te li muy jàng bëgg na ci benn niveau amoon na bu continuer woon mën naa dem mais am na lu ko dammat lu ko yàq ba loolu dafay toujours dafay réciter mm. dootul xamati li muy jàng ñaareel bi ci des day am absenté léegi bu yàggee ba yàgg na muy commencé di perturber di jaxasoo muy commencé xol bi di tàng muy énervé nga gis ko muy commencé di gaaw a mer te kenn du ko def léeg-léeg mu beru dootul bëgg comporté woon ak nit ñi ba pare xalaat yi ñaaw di ko diggal da ngay gis ci ñooñu sax ci góor ñi rab yi dañ leen di jàpp di leen dugg ba dañuy massi bi wu seen bopp maanaam wéet dugg ci toilette ak fenn jël seen wàllum wàll sëy mm-hmm. euh, di utiliser seen bopp di sëy ba gis seen bopp muy ay góor yoo xam dañuy foowee seen bopp di yëg seen bopp fekk li leen koy def la mooy seytaane bi nekk ci ñoom muy rab bi nga xam ne moom moo leen di def la loolu mm-hmm. da gis koo xam dafay lal si jaadi jullikaay mu commencé dem ba nga xam ne ni mu ngi war a def li nga xam mooy euh, kab kabar diggante kabar bi balaa ba pare fatiha bi nga xam ne moom lay tari daf koy damat ci biir ay jaxase ko ba julli gi du normal nga gis koo xam ne diggante taay gi ak kot bi mënu la wax na la liggéey naa ko nam nakku ko l'islam santé dootu ko def mhm. ngay gis ñoo xam ne dañuy ab absenténte seen côté wàllu julli mhm. dañuy absenté si wàll jaamu yàlla gi bu baax a baax a baax a baax mhm. nga gis koo xam ne ni ci wàll jigéen dafay gént di sëy di yeewu di gis li nga xam ne moom mooy ay régalam nga gis tamit ci wàllum góor day gént sëy bu yeewoo gis tubayam tooy nga gis couple boo xam dañuy sëy saa yu ñu àndee sëy ku góor ki wér na ku jigéen ki wér na walax njaan yooyu nga xam ne moom la leen yàlla lëkk lëkkalee ñoom ñaar ñu war a doon bindeef saa yu ñu see rabu ku jigéen ki dina yàq li nga xam ne mooy mandiw bi jóge ci ko góor ki wala mu récité ko ci ko jigéen ki bu bu jógee mandiw bi nga xam ne moo nekkoon te moom la borom këram bàyyi ci moom dafay récupérer waat pour génnaat nga gis koo xam ne bu ëmbee un mois deux mois dafay def li ñuy wax avorté mm-hmm. kon loolu dafa am lu ko indi li ko indi mooy rab yi nga xam ne ni maanaam jim jinne seytaane yi ñoo leen di yabal ci nit ñi di leen dugg di leen trompé ci côté bu mel noonu ñi seen côté wàllum njur di issué ba pare ñu am problème ki nga xam na que moom bu déglee ñu bàyyi rab yooyu bàyyi wala mooy jinne mooy jinne seytaane yi bon yi ñoo nekk seen xalifa yi donc koo gis mu ngi mel ne ni nga ne nit ki kan mooy xalifa euh, nit ki façon nit bu nekk am na xalifa mhm. tijaan yi am na seen xalifa murid yi am na seen xalifa laay yi am na seen xalifa voilà xalifa ki joxe ndigal yu mag xalifa lan jinne yi waaw moom mooy iblis mooy iblis mooy seetaan iblis iblis yi ñu doon iblis am na iblis yu ndaw yi te loolu jàng nañ ko ci alxuraan iblis bi dafa am lu ñuy wax ngan di iblis bi nga bi nga xam ne xoolal dijaal bis bu ñëwee ci mujjub jamono hmm. benn bëtam lay ànd bët boobu ak làmbi mi ñoo takkuloo pourtant bët bi ak làmbi bi fi ñu toll nit ñaa ngi ci taxamuñu ko ma laaj ma wax la ko ñëw na yow yaa ngi koy gis chaque jour pourtant yaa ngi gis dijaal yi mooy yaa ngi gis bëtub dijaal yaa ngi gis làmbi ñu dijaal hmm. mooy site internet yi internet siiñam wane na ko joxe na siiñam toujours ci biir internet bi boo duggee dama ci réseaux sociaux yi nga dem eh, ci ci ci ci YouTube wala nga dem ci yeneen suite yi nga xam ne yëpp mën naa ko tudd tey jii mais jaru ko. bu ci nekk boo ci duggee da nga fa fekk ay loo xam ne lu doy waar lay doon. Mm-hmm. Hmm? bi ci des da nga fa fekk ay wax yoo xam ne tegginewul léegi sutura amatul da nga gis dof buy romb ko am àndut ak xelam wérul ñu fexe filmer ko def loo ko ay manière yoo xam ne nii nit du ko def nit ku wér du ko def ñu jël ko dugal ko ci site internet yi. ba pare loolu mu ngi tàmbali ci jëw ak tooñ te Dajjal loolu la bëgg mooy ñëwum gi muy ñëw ci àdduna nga xam ne egsi na ba pare ku ku imancé koo xam li may wax di jàng li nga wax affaire scientifique dëgg ah. xam-xam dëgg pour gëstu dëgg xamal ne ne bëtu Dajjal ak làmmiñam boobu di taqaloog bët bi mooy diggante internet bi muy communication bi ngay dégg mm. muy écho bi ak lan mooy image bi ngay seetaan mm. boo xoolee muy technologie bi xew léegi ci adduna bi yëpp sa adduna bi yëpp ci lu bon ak lu ñaaw moo am mm. soo demee boo demoon tey euh, midina nga dem màkk nga dem euh, yeneen dëkk yi fu ci nekk rek koo gis rek mu ngi yore téléphone mm. day connecté day dugg ci site yi day xam li xew ci dëkk bi dañ naan dëkk bi moo gën a sell dëkk bi la gën a jaamu yàlla dëkk bi moo gën a rafeti jikko waaye foo dem rek ku fa nekk rek fekk nga fa jikko yu baax ak ay jikko yu bon hmm. voilà jërëjëf sëñ Bassirou Ndiaye kontaan nañ bu baax a baax euh, ci waxtaan bi démarré na bu baax joxagu ma doon numéro mais xaaral ma jox la numéro sëñ Bassirou Ndiaye yow muy seetaan bindal bindal maire foofu bu dee mënul bindal boppam paa bi tamit ba di neexul ki wax ci saal bi mu noppi numéro Serigne Bassirou Ndiaye soppee na bi dafa 77 871 71 46 46 77 871 46 46 wala nga def beneen bi bii moo am whatsapp bi boo bëggee jokkoo ak sëñ Basirou Ndiaye jëhëran 77 825 98 72 sëñ Bas nag message vocal yu guddi du ko mën a liir da nga koy tënk rek wax ko mu mm. dem ci la nee na 77 825 98 72 wala nga def beneen bi fixe la 33 871 09 72 33 09 72 Serigne Bassirou Ndiaye soppe nabi nekk ci croisement Kër Massar cité Adja Marème Diop nga fekk ko ko soxla lu mu ci mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam tëlewul dara te mën na lépp dina nekk ci Touba tali 28 bi fi jàkkaarloo ko sëñ aboom sëñ Fallou nga fekk ko fi dis ko si soxla lu mu ci mën mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi nga xam ne que tëlewul dara te mën na lépp sëñ Bassirou Ndiaye hmm. soppi nabi ñëw nga ci jinne yi rab yi xeet bu mel noonu yëpp ba ñëw ci ba pare ci boobu ñu bëgg laa indiwaat ci beneen mbir sëñ Bassirou Ndiaye mooy ñi nga xam ne ki nga xam ne ko lu mu yor mu dem alal munta téye ci kii bi conteneur am tag ci poor bi ay teereem ñu teg ci loxo li mu nekk ci xat-xat bëgg ci génn génn bu gaaw àggaat forow fa mu nekkoon tàkk jëpp daal kooku loo ko mën voilà dafa am ñi nga xam ne ni maanaam ni leen rab toppee noonu la leen jinne toppee ba tey foofu ci benn bi la rek même thème thème bi la mais ma àggali ko danga nga gis euh, góor goo xam ne nii maanaam dafay bëgg yare soxna mais du ko mën a téye toujours seen relation moom ak jigéen dafay day gàtt wala nga gis ne moom ku nga bu fekkee ne ne am na ku muy bëgg toujours seen relation du continuer nga gis koo xam ne ne buñ ko mayee soxna du yàgg sëy boobu tas mu dem takk keneen bu boobaa dañ naan kii ku mu takk wa ci ku mu takk wa ci ko fekk moom ay àndandoom ñoo koy tàggalee kooku mm-hmm. wala ndaw si mu sëy si am na àndandoo day loolu day am ci ku jigéen ki tamit da ngay gis jigéen joo xam ne ni moom mënul fexe ba sëy maanaam képp koo xam ne nii maanaam takk na ko rek sëy boobu dina tas da nga gis jigéen joo xam ne nii day am benn li ñu koy tuddee ñe kii dafa am gaaf fekk gaaf bi du ci ndaw si mhm. dafa am lu nekk ak moom benn jinne bu bon a bon a bon bu ko topp boo xam ne ni mhm. jinne boobu ko topp maanaam ni mu koy indil mooy euh, maanaam saa yu amee borom kër rek jëkkër ji day gaañu mhm. soo amaatee borom kër jëkkër ji gaañu fekk jinne yi ñoom ñooy def loolu bu boobaa nag ñu ne ndaw si dafa am gaaf ba ndaw si kenn dootu ko ñemee takk loolu tamit am na pour ñu fàttalil tamit ñi nga xam ne am na ñu ngi ñuy seetaan mm. ñoo xam loolu rekk seen problème te ñu bëri di ko wax ma leeral ko ci biir loolu mm. euh, bi ci des it maanaam ñu leeralaat li nga xam ne ni mooy yàqule bi mooy ci côté cat yeeg yàq yeeg yooyu jinn yi dañuy yàq cat yi dañuy yàq ba tey maa ngi ci côté jinn yi mais damay dugg dafa am ñoo xam ne ni seen rab ñoo leen di fiire seen alal am ñoo xam ne ni jinn yu bon yi ñoo leen di topp pour yàq seen alal ba lu ñu tàmbali wala lu ñu kii rek mu yàqu ba tey nag li wax maanaam cat dafa am muy bët ak làmmiñ mm-hmm. am na ñoo xam lu ñu yaakaar dafay tas lu lépp lu leen doomu aadama dig duñ ci teg seen bët lépp lu dugg seen da nga xam ci biir wax jëm fa leen koy diggee seen na ñi nga xam ne ni am nañ wërsëg mais dara du toog seen loxo lu ñëw rek day dem day mel lu ñu taal mm-hmm. ba pare dafa am ñi nga xam ne ni maanaam ci seen Euh, maanaam wàllum cat da leen di topp ba nga xam ne ni dafa yàq seen côté liggéey fu ñu liggéey rek du yàgg ñu jóge fa fu ñu liggéey du yàgg rek ñu jóge fa bi ci des it dangay gis koo xam ne ni ku ko ku am wërsëg lay doon moom am na wërsëg toujours day xëy am wërsëg toujours day xëy am wërsëg. Mm. ba pare alal ji am dina toog mais problème bi mooy du ko jëriñ. Mm. du ko jëriñ du ko jëriñ. Mm. du ko jëriñ nga gis koo xam ne ni maanaam lépp loo xam ne ni dugg na ci ba am ci yaakaar bu ko waxee ak doomu aadama ba tàmbali loolu muy tukki wala lu mu mën a doon rek après loolu dafay daal di essuyer kon loolu c'est il faut que nit ñi bàyyi xel mbir mu mel noonu bu fekkee ne soxla nga soxla nga loo xam ne tamit lii tey ji yow na nga gis koo xam dafay dafay nekk bitim réew mu nekk tey Amérique wala mu nekk tey France wala mu nekk Espagne mu dugal ak këyitam pour ñu may ko këyit mais toujours bu dugalee rek dafay essuyer ba day am gis koo xam ne ni permis la bëgg permis boo xam ne ni permis Europe bitim réew mu bu defee passé permis bi ba nga xam ne ni lépp li mu war a def def na ko ba fay xaasam ba pare après mu issuer duñ ko may kayit donc loolu lépp ñu koy dund mu métti surtout suñu doomu Sénégal yi sonn fa bay bëgg a dee loolu daf leen di dal hmm. nga gis koo xam ne ni dañuy takk sëy bi bañ ne euh, mariage bi takk nañ ko tey maanaam samedi dimanche altine rek sëy bi tas nga gis yooyu nga xam ne am na jóg bi ci des am na li ñuy wax liggéey nga gis ni koo xam ne ni dafay am moyen euh, liggéey mu commencé liggéey commencé tekk wala mu am njàng mu baax mu muy avancé mu am yoonu tukki dem bitim réew pour pour pour jànge mais day jékki-jékki rek ñu yàq ko sëñ Seex ñu yàq ko soit am na ci ñoo xam dañu dof sax waaw dañ koy yàq maanaam dafay dafay fay complètement du am dara et lu mu dugg dootul baaxati mu jóge fa ba dootul nekkati nit yooyu yëpp am na da am na yoo xam ne ay ñabar la liggéey nit ki mu dof wala nga yàq nit ki ba kenn dootu ko comme ni ñu waxee takk xala nga seet nit ki ba takk ko xale mu sëy mu néew doole ba mënatul sëy yooyu yëpp am na korte tamit am na hmm. mais korte dafay ànd ak seytaane ndax eh, jëfinu seytaane lu ñu koy liggéeyee ba nga xam boo ko defee nit day doon korte mën na nekk ci yaram bi fu fu nekk mën nga ko dindi ci saa corte waaye oh. seex suñu seex tamit loolu. ci stage la. sëñ seex man sëñ seex man man yooyu loolu gën a tout ci ah, man yooyu macha allah ah maanaam eh, mais suñu korte nu mu mel suñu korte waaw korte ah. dafa mel ni tey da gis koo xam ne dafay am benn lu mel ni tàpp ah. mu jékki-jékki muy génne ndox léeg mu génne lu mel ni sax wala ay affaire da ngay xam am na koo xam ne nii boo ko boo jàkk xool xool feebaram rek da ngay xam ne kii kortu la dañ koo liggéey ba ci ñin ñi ñi ni naan dañ di dagg seen tànk ak xeet googu waaw mooy li ma yooyu la rek mooy mooy yooyu di génne ndox rek di sotteeku di génne ay comme sax ak kenn xamul yooyu la wax kort am na yi nga xam ne lay sànni li ñuy wax fett saalum saalum maanaam benn ngelaw lay doon boo xam ne day dugg sa yaram bi di néewi ngay songé ngay feebar tey bopp bi métti tey lii métti ñu ne da nga am fet saalum saalum dal na la ci façon bu nekk lay ñëwee ci cerveau doomu aadama ci xol bi ci ni muy fàtteeg yooyu bi ci des it am na nga xam ne ngelawu seytaane la nit ki nga xam ne ngelaw da koy dugg am na benn waajoo xam ne nii sama client la maa ngi koy bëgg a dimbali incha allah yàlla na ma ci yàlla may ndam dafa am benn coro boo xam ne nii da ko doon bëgganteel yàlla def takkugu ko nee na moom ñëw rek maanaam di euh, okola li nga xam ne moom mooy corom bi maanaam ñu ñu fóonanteel ñoom ñaar ah. léegi neen bu mu fóonee ndaw si rek ci la jógee yëg ngelaw loo xam dafa jóge ci gémmiñu ndaw si tàng jër comme safara ah. dugg ci biir bi nee na foofu fekk biir bi day gonflé ba pare di ngelaw loo xam ne day génn fu ngelaw li génn kenn du nooyi foofu xanaa bàyyi na ndaw si mm, waaw ah, loolu kii ko nee na mu gis am beneen ku jigéen ku muy bëgganteel jigéen nee na ba mu ñëwee nekk ku jigéen ko ku jigéen ko loolu arrivé ko encore mu xam ne ni kon lii baaxul ma ne ko effectivement loolu dafa ànd ak ngalawu seytaane feebaru seytaane la baaxul ñoom ñoo la koy def hmm. donc yooyu yëpp dafa am da gis koo xam ne ni bët yi du am cataracte du am meep du am gulukum bët yi day leer nañ ñi muy gis mu xëy xëy rek bët yi lëndëm dootul gisati yàlla ak ni muy ñëwalee ndogam nga am ñoo xam dañ lay liggéey dootoo gis hmm. am ñoo xam dañ lay liggéey dootoo am yoo xam dañ lay yàq complètement loolu lépp dafa am te boo bu fekkee ne nit kaa ngi may seetaan nangu ne na sëñ Bass lii mu wax yépp am na kon bu waxee lu baax li nañ nangu ne loolu am na masha Allah ba tey it am na li nga xam ne ci jëf yu baax yi la mm. mooy nga seet nit ki nga xam dafay dund situation bu mel noonu nga fexe ba dindi ko situation boobu c'est mm. important léegi sëñ Bass dan la masoon di ay jamono ay euh, kër yi doon lakk yu mel mm. noonu ngay dem ba kër ga di ko fay pour yu mel noonu xeetu yu mel noonu tamit yaa ngi ci ki am ki nar a jënd terrain mm. wóorul terrain bi am na rab wala amul rab ki nar a jënd kër wóorul ci kër gi am na rab wala amul rab xeet googu yu mel noonu tamit ku ko bëgg loo ko mën a waaw mu ngi mel ne ndaw si nga xam ne dafay daanu di daanu rab di tàggalikoo sagoom fekk kër gi mu dëkk ci boppam kër googu moo am rab boo xam ne nii ba ndaw si duggee ci kër gi rek ci la ko rab bi ñëw engagé topp mm-hmm. ndaw si wala mu topp xale bi nga xam ne xale bu ndaw la léegi nag xale bi di daanu di say di yuuxu ñu koy téye te su ko dal nga gis kër gi commencé di tàkk nga xam ne li topp xale bi kooku mooy taal kër gi mm-hmm. dangay gis koo xam ne nag kër gi kenn du ci daanu waaye am na ci kenn ki nga xam ne kooku lay topp kooku néeg bu mu dugg wala buntu saal bu mu dugg rek foofu tàkk voilà nga xam ne bu boobaa nag dañuy jël nit kooku ñu ñaaw njort ci moom fekk ne ne dafa am lu nekk ci moom loolu tax kër gi di tàkk mm-hmm. Hmm. c'est important pour nit ñi euh, jinne yi tamit dafa am jinne yi nga xam ne ni dañuy taal kër yi di taal néeg yi tey ji boo demee waa tey boo demoon tey ji fii ci Kayaar fay naa fi kër yu bëri ba fan yële ci passé ñu am fa benn dëj ma dem ci dëj bi ci même jour dëj bi ba ma génne ba dugg sama oto dem am na ko ñëw na ma sëñ Bass kër gii ñu jàkkaarloo tey jii yow yaa ko fay ak kër gi nekk fële ba muy tàkk yaa ko fay waaye am nañ kër guy tàkkaat fii ci ginnaaw hmm. xanaa dafa mel ni ñi nekk fii dañoo daw dem kër googu dañoo bëggoon nga fayal ñu ko man leen da ngeen bàyyi benn àjjuma ma jàpp bis ñëw fay kër gi tey sama borom bi moo ma dimbali ci leen nag su may fay kër gi kaay ma nettali mën a xaar ba àjjuma nga fay ko la ndax xaar de dama ko jox suuf ñaan ci suuf si na ko def ki ci kër gi dootu tàkk ba ni may ñëwee du tàkk dama koy fay maanaam li li may fayee kër sax moo gën a doy waar ah, ah. ngay ñëw naan ay gas gas ak suul ak yooyu yëpp coono la rek ah, man dugg naa ci kër gi rek kër gi dootu tàkk léegi marché yi naan day tàkk sax pour di ñëw buñ ma woowoon dootu fa tàkkat nañ ma woo amul sikki mais lan moo tax li ma jaaxal marché français Amérique yooyu du tàkk marché sénégalais du tàkk wala waaw mais xam nga boo xoolee fii rab yi dañu fi bari ba pare Sénégal gëm nañ wàllum ñaam hmm. ba pare xam nga fee dëkk bee ñu baal ma ci wax dëkk du dëkk jullit ñoom bu fekkee ne ci côté jaamu yàlla ñun nuñ koy defee rab yi bugguñu ko seytaane jinn yu bon yi bugguñu ko toujours fii ngay jaamoo yàlla kiy jaamu yàlla ragal yàlla loolu bu France googu ngay wax dañuy tàkk euh, euh, yenn dëkk réewu tubaab yi fépp féppay tàkk da ngay ceeb yàlla ne building bi tàkk na mm-hmm. lii tàkk na dafa am yenn tàkk-tàkk yi nga xam ne nag du wàllum rab wàllu électricien courant yi lay doon branchement yeeg yooyu tamit na ngeen ko bàyyi xel du lu tàkk rek ñu ne du fu oto daanu rek ñu ne jëndee ko daaneel déedéet dafa am yoo xam ne ni ndogal la yàlla moo ko bind ci nit ki ci jëm balaa mu ciy jóge mm-hmm. day am am na kër yi am na am na marché yi nga xam ne day tàkk mais installation courant lay doon safara la bu am na ko doon ataay moo fa taal mais taal bi nga xam ne nag kër gi la kenn kenn boyulul du cuuraay du andu du safara du dara du courant du dara nga xam ne da ngay toog ba mu yàgg néeg bi tàkk nga dem fay néeg bee tàkk nga jékki-jékki li ñu weer ci liñ bi tàkk ba ci duus bi liñ fi yi di tàkk nga xam ne loolu yaa kenn ko sos jërëjëf sëñ Bachir Ndiaye waxtaan bi leer na bu baax a baax ci hmm. wàllum ki nga xam ne que dafa am euh, ay terrain hmm. wala mu ay këram hmm. nekk ci lu jub nattu jàpp ko ba mu yëg ko wàcc nga xam ne que boo mul toppatoo dëgg day ñàkk ndax wàllum kayit am na ci lu leer mais wàllum yoon xam fa war a jaar jafe ko ku mel noonu mu nekk ci projet mën nga ko ñaanal mu am ndam. bien sûr ki nga xam dafay am terrain mais kayit ji mooy problème hmm. loolu toujours dafay am. wala mu de am njublang ñëw ci moom rek ku ko gën a xam. ku ko gën a xam muy njublang comme léeg-léeg ñu na ci ñoo xam dañ lay fekk nga yor lu leer ñu ñëw yor seen lu lëndëm wala ñu wuti lu leer comme yow ndax ay pexe. Ah, borom pexe la ay pexe la. lenn bu boobaa yow mi moom sa yëf. ñu bëgg laa indil lu lëndëm te yow yaa moom lu leer li soo toogee ba ma defal la consultation ba xam loolu ci yow yow kay santaatal yàlla te nga xam suñu borom bi boole naa la ka lay dimbali boobaa ci kàttanu yàlla ak ndimbalim ak yërmandeem incha allah rabbi bu neexee yàlla man dinaa la dimbali ba nga am ndam ci kaw seytaane boobu taxaw ko ñiy def yu doy waar yi dañuy gertaru ba ne teg nga xam ne ko su boobaa sa gàllaaj ñu toj ko Ah. xam nga dafa am ñaari façon dafa am tey ji bu fekkee ne sëñ Seex da nga indil benn jigéen ak yow nga ne ma ndaw si damaa bëgg nga ñaanal ma pour ndaw si maanaam ma takk ko ndax yaayam bañ na wala de dama leen wax joxe exemple laa wax ma ne comme yow hmm. da am comme benn waay daal comme benn waay ma Samba Diop takk benn ndaw Seex xam naa soxna si moo la jege moo tax waaye dama ne bu fekkee ne suñu Cheikh Bébé Samba bëgg a takk Oumou Ndour waaw dama waaw léegi par exemple tey jii ah. benn nit boo xam dafa ñëw ci man hmm. bëgg takk tey soxna waaw léegi bëgg na soxna si ah. soxna si tamit bëgg na ko mais hmm. waajur yee bañ wala boog waajur bëgg nañ mais ndaw si moo bañ te ñoom ñëpp jullit lañ suñu ñëwee man ñaanal leen ba ndaw si nangu wala waajur yi nangu léegi nag am na ñooy ñaanee du nangu ah. su fekkee dangaa ngaa bëgg jël turu Cheikh jël tur ndaw sa def ci tur ba rek nga basé wu pour ñaan noonu day bañ. day bañ il nga jël biddéew yi. biddéew yi voilà eh. biddéewu ndaw si ngay jël biddéewu ku jigéen ki nga xool seen biddéew wala biddéew waajur yi. nit ki boo ko bëggee jàpp ci biddéew nga koy téye. Hmm. waaw foofu la secret yi nekkee. secret yooyu nag ci li ñuy jëfee. nga xam ne ni xam-xamu biddéew nga ko loolu kon. ah bien sûr ndax xam nga boo affaire xam-xamu ay rawaana xuddaama ki bati waleen kay. force nga xam biddéew waaw non côté boobu yow yow lii nga ciy lim parfois. xam nga boo xoolee boobu dafa mel ni nga tàng ko boo ñëwee boo ñëwee Cheikh Bayel dafa gën a ba nga tàng ndax nit ñi ñuy soxla communication bi <laughs> déglu ma ndax décor bi rafet na ba nga xam ne ni bëgguma nit ñi bàyyi xel image bi décor bi ba duñu déglu ah. moo tax ma bëgg a waxee nii pour nit ñi déglu ma mm-hmm. euh, sëñ Cheikh euh, boo xoolee euh, ba badaxtu bismillahi ruhu bi tawat bi asfi kasrin maahiri tawat Hmm? yaa ngi dugg ci way ba yooyu hmm? ay wuy jinne la hmm. waaye nañ fa génn léegi ñu ñëw ci baabur siraajo baabur siraajo lay lu tuboo li jaata biri biri kayaa ji bi jëy naa antum billaahi ay soo mara ay soo laa badara aw foo insha allah yaa sukka inna ko naa maa koy ko koyaa bi saaka la naa kii tamare kii kum kare anta melax melax xarfeeni jinne surux surux xarfeeni jinne kidri faatine yow muy maamu dëmm yi an firoo ah? léegi nag foofu yaa ngi xeexal rab yi ak jinne yi di leen tëkku bay géñ kon ñoom li li ngay wax ñoom xam nañ ko ñoom rab yi maanaam dafa mel ne ni yow mi jël sa xiir ah. tàngal ko ci safara ah. mu ànd ak courant nga leen koy caw noonu la mel boo leen di dóor ah. dafa mel ne aaya bi boo koy wax di ko génne nag boobu ma indi leen ndaw si nga xam ne day daanu du ñàkk da nga ko wane ci ah, image bi lii du alxuraan li nga wax léegi nga ne bu doon lépp alxuraan a koy faj ah. kon ñëpp wér may ma ñëw ma wax la ah. da nga ne alxuraan bu doon lépp alxuraan a koy kon kenn du ci sëriñu di sëriñ di ut naa li nga comprendre naa foofu laa bëgg ni ndax maa bëgg dafa am ñu lay déglu ñoo xam ne ni xel mi nga am ba laaj ma ok yow li nga rëcc ba ne aaya bi boo ko defee nii te li nga doon wax xam ma ko ci alxuraan moo tax may bañ moom laa lay dimbalee dama ne bu fekkee la ngay jëf ci alxuraan kese kese kese nga ko yemalee mm-hmm. kon kenn jarul muy seeti kenn te jàng nga mm-hmm. bu boobaa jël sa alxuraan nga jàng te mm-hmm. loolu ibaadu yi sax duñ koy wax waa dama lay bëgg expliquer benn mbir secret dafa am solo te secret kenn du ko wax secret dafa mel ni ki yare ki yare arwam sol tubayam waroo koo génne di ko wane loolu mooy secret waaw dama lay nettali léegi nag li nga xam ne ni maanaam par exemple tey ji euh, euh, ki papa ji jàng alxuraan yaa gi jàng alxuraan mu jàngal doom ji alxuraan am beneen doom doom jooju di daanu rab papa ji jàng na alxuraan ba xam ba def addis yaa ngi jàng alxuraan ba def addis seen doom di daanu te ñoom mënuñu ko faj. léegi ko ñuy seeti. <laughs> sëñ Basirou Ndiaye sëñ Basirou Ndiaye léegi sëñ Basirou Ndiaye bu ñëwee su lu muy wax. Eh. may ma ñëw. ak ah. ah, ku dul kii ma ne ko ñëwal mu toog ma jël sama loxo teg ko mbaa ma xool ko rek. waaw ah. xulli ko samay bët. xulli nekkaat keneen. beneen mbir. waaw beneen mbir. daal ne Babus rajo. waaw lu Tuubo li jaata biri biri kayaa jëy bii jëy naa am tum billaahi déggal giñ gi. waaw dégg Babus foofu ñaan gi da ngay ñaan bay giñ. naan baabu siraaji laylu tuuboo li jaata biri biri kayaa jëy bi jëy naa antum billaahi ay soo ay soo maara ay soo la badaraw incha allah mooy maanaam incha allah yaa ngi sant yàlla ci biir waaw incha allah donc nga gis ne boo jëlee baabil siraaji bi nga wax ko dafa doon siru dafay ànd ak si siru kursiwu mm. ba pare dafay ànd ak sam salixan gi mm. yaa sam salixan wa sam salooxan wa sam salixan wa salooxan mm. ah, waxal ma loolu yaa sam ya ndax déet pour nga wax ma bañ ah, la ko loolu sa domaine la waaw yaa sam salixan wa sam salooxan wa sam salixan wa salooxan yow am na jat yoo doon def sax ana jat yooyu yaa ngi ko mën a xaaral ma ñëw ah. soo waxee yaa sam salixan gi wa samsa loo xan wa samsa lii xan wa sa loo xan dafa mel na nga jàng ay kursi wu ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ah, loolu secret la. c'est tout. Hmm. nag boo ko defee nga dugal ko fekk dugal nga suru kursiw bi encore te hmm. bokkut ak suru bi suru bu foor boobu boo ko boolee ak baadu siraaji bi laylu tuuboo li jaata biri biri kayaa jéb bi jëy naa am tum billaahi ay soo mara ay sula badra aw foo insha allah yaa sukka inna ko naa maa koy ko ko yaa bi saakala naa kii tamare kum karee anta melax melax xarfeeni jinni surux surux xarfeeni jinni kin riñ fattiña yow mi maamu dëmm yi an firo léegi nag ñaan googu ngay jël nga def ko dafa am lu ñu koy liggéeyal am la nga koy booleel ci ay cuuraay boole ko ci ay sunguf yi nga xam ne ni bu ko nit ki sangoo ak nga wax ko ak mocc bi nga koy mocc am fas bi nga koy fasal tamit maanaam ba ilaa yow mi diini rab bi ko toppoon da koy bàyyi su ko bàyyi rab bi day dee Mm. dafa am bi nga xam ne day rey am bi nga xam daf lay bàyyi ba abadan am bi nga xam ne rab bi moom day dee ci saasi uniquement am na yoo xam ne am na yoo xam ne seen rab ci jour bi laa leen di éliminer ci éliminer waaw ci ci jour bi laay rey rab bi moom rab bi moom dootul bokkati mm. xam nga loolu ba mosoo rey rab bi mbokk rab yi maanaam boo calculé man li ma rey ci ay rab xanaa da nga naan ay millions de rab million rab. dama leen waaye yow sëñ sëñ Cheikh yow. <laughs> ñaati nit. kon rab yi sonal na nit nit bu amee rab dañuy jàpp ne benn rab ko topp. koo gis muy daanu muy jigéen boo gis muy yuuxu di daanu. lu mat junniy rab yoo xam ne ay mboqam la ñu ngi ci ginnaawam. saa yoo ko yóbbee ci sëriñ su sëriñ bi dañ nee rab bi ba bii dañ ndaw si day daanuwaat ñëwaat ñu indiwaat ko ci moom. mu dindiwaat ko ñu indiwaat ko ci moom. ñu dindiwaat ko mu indiwaat ko ci moom day fekk ni ay famille ñooy ñëw di remplacer kee ndax kee dafa fatigué. yow après li nga soo bëggee moom soo bëggee nag famille bi yëpp bàyyi ko. da ngay éliminer rab bi da nga koy rey mu dee soo ko reyee ba pare. da ngay gettir ndaw si ba nga xam ne rab dootu ko duggati. ok soo defee li nga mos rey ci rab après mën na 13 millions. waaye sëñ Seex xam nga man mënu ma lim ne tant de millions de personnes laa rey ci ay rab ndax boo xoolee am na jigéen yi may seetaan ñu bari ñoo xam ne tey seen xel demoon nañ man maa leen faj bu la neexee mën nga dugal image wan ko nit ñi ah. benn am na ñi ah. xam ne dañoo doon daa dañu doon doon daanu ci école yi am na nga xam dañu doon daanu si kër yi am ñi nga xam ne dañu dofoon ci ay góor ak ay jigéen hmm. tey ay jun ay téeméeri téeméeri personnes ñu ngi toog di ma seetaan te kenn ku ci nekk la la toppoon xamoon nu mu toll léegi multiplier ko waaw hmm. ah, kon c'est tout kon daal maam kon Sénégal bu ne 12 millions la te yow rey nga lu ëpp 12 millions. rab waaw déedéet rab li rey nga lu ëpp 12 millions rab mën ngaa xëy benn suur rey téeméer. Ah, jeex na day dafa am koo xam ne ne daanuwul moom daanuwul xam nga lan la pour am problème lan la am. jigéen bu rafet lay doon jekk macha allah mel na mu war a mel mais ku ñëw ngoro ko du du jàpp. Hmm. maanaam rab bi moo koy dàq. wala hmm. rab bi da koy géntuloo di ko sëyloo. rab bi di ko merloo di tàngal xolom di ko di ko yàllam di ko soloo ak col gu bon. wala mu koy moyloo yooyu rab yi dañu koy def nga gis ndaw soo xam ne nii day bëgg borom kër mais ku ñëw wax dem ku ñëw wax dem hmm. léegi nag sëñ Bass Ndiaye dafa ñaanal ay jigéen yoo xam ne ay junni junni jigéen lañ sëñ Bass Ndiaye moo leen ñaanal fii ci Sénégal bitim réew ak Afrique ñu am jëkkër tey di sëy am góor ñoo xam dañoo am corom rab ñu fexe ba téye soxna mënuñu fexe ba am gel sax bu mënuñu ko am ndax seen coro rab sëñ Basiru Njaay moo leen ñaanal ba tey ñi ngi takk soxna am fay doom am ñoom problème doom tamit waa donc loolu boo totaalee ñooñu total ñiy daanu total ñi ak ñee loolu seen Cheikh kenn xam lu mu toll wala damay ñaan rab yi dañuy faagaagal ku leen di def leen li yow nga rey loolu lépp ci rab ba pare rab yi ñoom jéemuñu laa sot wala dañ laa sot mënuñ ci dara wala seen famille pour famille rab chaque jour ñu xeex nga naan dafa mel ne kata rek dafa mel ne yaa ngi xëy di bër ndax léeg dangay da ngay xëy xëy yow miy faj man mi faj damay xëy xëy léeg sama yaram bi diis bopp yaram bi di métti fekk la ngay dund ci guddi gi la ah, yaa ngi ñoom moom day metti waaw bien ndax dañu lay dañu lay tapas dañuy ñëw feeñu la di la attaqué di la dóor ay wax di la daal mën a déggee fay rab moom euh, non dañuy xeex lu mu fay sëriñ bi fay ko dañuy xeex maanaam bu fekkoon nit ki dafa am rab muy daanu wala nit ki dafa am rab dof wala nit ki dafa am rab xel mi di dem wala mu munta am doom wala mu am rab muy muy dépassé sagom kooku bu ñëwoon ci sëñ Bas wala ku mel ni sëñ Bas ñu faj ko mu wér mm-hmm. imaasal na kooku bu fayoon un milliard fayul fayul ki nga xam dafa am tànk buy métti am loxo buy métti ki am bopp buy métti tam te mu talaa bàyyi su la ko sëñ Bas loon boo ko joxoon ay million fayoo ko mm-hmm. sante amul prix sëñ Bas ñëwoon ci bilende bu saf sapp na ku ko bëgg koo xam ne ku la liggéey yëg ko ku la bëgg a yàqal yëg ko maanaam da ngay nekk si jàmm ku def dara mu mel ne balu teng si dóor mu dellu beneen bu saf-sap. comme loolu loolu loolu euh, retour retour retour nga koy da nga koy tuddee li ñuy wax retour daxmaadun. retour daxmaadun. retour daxmaadun. mooy yaa daxmaadun wa day buusun wa tey fuuxun alxajala wa yaa muymuuna silsil bilitif waxtif maa amartu ko bihaar voilà boobu mooy li am solo da ngay def loo xam ne ni soo ko defee muy gàllaaj bi nga xam ne takk nga ko wala sangoo nga ko geetroo nga ko doomu aadama bu la da day mel na tang si day dal dal ñëwaat te bu ñëwee ci yow mi ko dóor lay daw tëll lay daw ndax man jamono ji ah. dama laal benn sangat bi nga xam ne ni ah. waxuma nit kii dem di ma liggéey ah. waaye boo toogee wax ci man lu ñaaw rek dootu am jàmm waaw amul sikki sàkk da essayé leen si teel laay wax internet bi ñoom. te tëkku na ñëpp <laughs> de. tëkku ma kenn de. Ah, dama ne tëkku ma de. ki ma tëkku mooy ki ma ki may tëkku man. ku la yëre lu bon dëkk koy tafal naa wolof da ngay indi wolof bu leer. tëkku ma ñëpp ndax ma tëkkoo ñëpp bàyyiwu ma sama yaay. Ah, bàyyiwu ma sama doom sama jabar. daal jóg nga sa bopp noonu. sangat boo xam ne dama ne man de bien sûr. képp ku yéene lu bon fi ma toog yow fi nga toog am na ku la ko yéenewul. waaw mais yàlla doyal kenn am noonam. man fi ma toog am na ku ma ko yéenewul. yàlla doyal kenn am leneen ak leneen am na ku ma ko yéenu man na am jabar jama yara am na ku ma ko yéenuwul am na ñi nga xam ne boo mu sa soxna ku la ko yéenewu moom du am jàmm de waaw maanaam moom bu fekkee ne góor yi ngi toog di xaar ngir man sama jabar génn sama loxo moom mu dugg ci moom waaw góor gu koy xaar soo ba nga gasal sa ba sa bopp bàmmeel nga xam ne ni doo ci mës a jot ba <laughs> dund ba dee doo si jot loolu jot ndax ndaw si bis bu duggoon ci man sax yow mi bëggoon loolu te mu nekkoon sama loxo bu ndaw si duggoon sama loxo sax du tax yow nga jot si mais ah, li nga wax ni moom. waaw mais Cynthia kon ñaan lan lay jëriñ. su fekkee man damaa bëgg toog wane na man damay ñaan lii damay def lii waaw mais man waaw lan moo tax man nday man man sëñ Bassirou Ndiaye man ma toog ci télé man waaw man ma toog ci télé. Mm-hmm. man ma def samay ñaan. Mm-hmm. ne damay ñaanal nit ngir rab dañ ci moom. Mm-hmm. damay ñaanal doomu aadama defal ko loo xam ne ku ko liggéey mu dal ci keneen. waaw man tamit lan moo tax du ma ko def sama bopp. doo doo defal nga sa bopp. xam nga bu fekkee ne sëriñ bi dafa ne dafay ñaanal nit ki mu am alal. waaw te sëriñ bi foo ko gis yéene ko sarax. amul dara mooy sëriñ bi mënul ñaanal kenn. mooy li benn sëriñ naan gëmul ne saabu du fóot boppam daal. <laughs> waaw donc man gëmuma loolu man li ma gëm mooy nit ki la ngay seeti ci nit ki na ne ci moom ba pare boo demee fekk ko ci moom boo ko gisee ci moom nag nga mën a gëm ci ay waxam sukkandiku ci moom mu defal la ko ndax benn kenn du ñëw ci man ba yërëm ma man ah, ah. teg te du ma ñaan kenn billaay te kenn du ma saraxit yàlla yàlla gën a sutura waaw mm. bi ci des desit muy ci visa ak jikki jëmm ji muy ci dëkkuwaay bi muy waaw daxaar rek muy ci jëmm ji dëkkuwaay bi ak am am gi sant naa ci yàlla te xale bu tuuti laa kawar gaa ngi ñuul bi ci des bu jee ci xam-xam bi la mm. ba ma dalee faj di ñaan ba tey di xeex ak jinne yeeg rab yi di xeex ak doomaa di nga xam cata leen topp di leen dimbali mm. mosoo dégg ñu ne Serigne Bassirou Ndiaye doxatul wala waxatul kon jeex na mbaa dof na ah. doo dégg ñu ne dof na wala doomam dof na wala soxnaam dof na nite na rek ngay dégg lan wér nañ nekk ci am rek moo tax nit ñi may jàmm da jël say matukaay daal mais man nag li ma d'accord yi du man maa ko njëkk jël sama papa ko njëkk jël avant muy génne àdduna sama papa moo njëkk a geetar ay doomam faj leen ñaanal leen ñun boo ñu rombee ndig benn gàllaaj nekkul sam ñu ndig waaye li ne ci jëmmu yanam bi moo raw gàllaaj beneen bu saf sap la waa lool la ñuy defal nit ñi man jël ay ndomb ji jox nit sax man c'est rare ma koy def su ma ko defee rek day fekk sëñ Bass ngir liggéey loo xam ne nii kam koy liggéeyal ah. ma ngi ci jafe-jafe yu taar mu dox la gàllaaj googu mm. waaye li ci ëpp man samay ñaan ah. xam-xam la arxuraan ak xam-xam waaw xam-xam mais man daal li ma d'accord moom képp ku topp soxna si jàmbur bàyyi ko képp ku topp borom këru jàmbur bàyyi ko ngeen nekk ci jàmm bu baax a baax mais sëñ Cheikh waaw foofu yàlla moo ko njëkk tëkku doomu aadama mm-hmm. kuy dem bay topp jigéen ah. dem ba léegi nag loolu nga dem ba doyatoo ko dara di ah. topp koo xam ne mu ngi ci néegi sëyam ah. ngir sëyam tas nga takk ko kooku jarul sa ngay waaraate jarul ngay digal nit ñi jarul ngay xale xalaat lu rafet jarul ngay wax lu rafet jarul ngay wax lu baax bu dee nit la boo xam day liggéey jarutul muy liggéey bu dee nit la boo xam ne nii dafay jàng arxuraan jartu muy jàng kuy jàngi école jartu nga koy def ndax yaa ngi def loo xam ne ni maanaam yow amutoo njëriñ ci àdduna yamal xiyaam gi ñuy jëmit yàqu nga fa yàqu nga fa waaw c'est tout mais li ci ëpp solo daal mooy góor buy jël jabaru jàmbur na jabar ja baax jigéen buy jël jëkkëru jàmbur na jëkkër ja baax boobaa mooy ñag bu leer bi nag. kenn waaw booba ñag jënd waaye man si Cheikh. waaw an kay danga gis koo xam ne jabar ji baax na jëkkër ji baax na waaye dañ lay yóbbu ci sëriñ. waaye ci Cheikh ah, tamit. mais Cheikh ñaata nit ñoo fi nekk ñoo xam dañoo jàng alxuraan ba mokkal ko yam fa ñu war a yam chaque jour bu ñu xëyee di jaamu yàlla ñu xëy xëy rek dof. Ah, wala ñu xëy xëy seen liggéey yàqu. wala ñu xëy xëy amatuñu njëriñ waaw léegi nag kooku du mbaax rek mooy tax nit ki foo nee rek lépp baax mbaax da lay yóbbu ci yàlla mbaax moo la yóbbu àjjana mbaax mooy tax nga mën a xam say waajur mbaaxay tax nga xam say dëkkandoo mm-hmm. maa ngi profité sa jël occasion pour nuyu sama dëkkandoo yépp ndax dafa am solo ma nuyu leen ndax dañ ma bëgg dañ ma sopp dañ ma teg foo xam ne ni rëy na waaw di nuyu nag sama père sama papa euh, Serigne Bassirou Ndiaye ba dafa tudd Bassirou sant Ndiaye ñu dëkk ci koñ bi mu baax ak Ndongo Fall Ndongo Fall di sama xarit di ancien ma boo xam ne ni tubaar fakal dafa retraité mu nekk ku baax moom it di ko ñaanal toujours ñu ngi jàkk ja euh, ñu ngi ci xalaat bu rafet ñu indi ko ci ak suñu délégué chef de cartes Diop waaw maay buuram ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu waaw non non sëñ Cheikh ah, il faut que nga nangu leen lenn man maay sa buur foog nga nangu ko waaw léegi doo gis benn jaay boomul borom de waaw <laughs> dangay demal la waaw doo gis jóobeen bëkki jóob golo jóob ma dem wala ma taxaw déet ba ma taxaw wala ma dem naa yaa daa daa la Cheikh da ngay saaga de waaye woon loxo wax de <laughs> ma ne Euh, c'est important mm. euh, sallallahu alayhi wa sallam loolu la waxoon mm. yàlla nee na muñam mooy euh, maanaam ñaari julli yi kal suñu borom bi neen da ko da bëggee da ko doon wax sallallahu alayhi wa rek moo mën feeñal bëñam mm. bu gisee ñaari julli yi kal rek day ree danaan jàmm am na fi moom dafa mës a bëgg jàmm moo tax réew mi jàmm luñ bëgg te ah. Sénégal dañu bëgg jàmm moo tax réew mi dañu leen war a ñaanal ñu am jàmm c'est important pour réew mi am jàmm waxtu benn dab looy benn question ki nga xam ne dafa jiite entreprise. Mhm. bëgg mu dox. Mhm. soxla ci ñaan. Mhm. ak ki nga xam ne dafa jiite ngan di société. tam beneen bu mu yóotu bu ko gën a rëy. bëgg ca dara. xeet yooyu yëpp ku ci bëgg lu mel noonu nga poste ba muy yóotu mu jot ci mën nekk. sëñ Cheikh. waaw gouvernement bi buy xëccoo réewum. waaw ba dox ñëw ci man. néew ma ne man maa koy may réew mi waaye mën naa am su ma tegee sama loxo mu gañ réew mi. kon rawati ki nga xam ne nag dafay créer entreprise. ak ki nga xam ne ni. dafa am entreprise ba pare bëgg lu ko gën a rëy wala muy xëccoo lu ko gën a rëy ndegam moo gën ci moom su ma ko ñaanalee da koy gañee ki nga hmm. xam ne dafa bëgg tukki bëgg visa da koy am ki nga xam ne ni dafa bëgg maanaam soxna si mu yomb ko hmm. loolu du problème ah, ki nga xam ne dafa bëgg bayre nit ñi bëgg ko mu am safiyan fu mu dem nit ñi fonko loolu du problème ni ki nga xam day toog yaramam di génne xet foo toog ci nit ñi ñi daw la foo waxee nit ñi du mooy la mm. kooku bu ñëwee loolu tàggali koog moom ki nga xam ne borom gémmiñ guy xeeñ ku ñëw ci moom boo ñëwee waaw dafa am ñoo xam dañuy borosu mm. dañuy raxas seen làmmiñ dañuy def lépp mais dañuy am lu ñuy wax mauvaise haleine dafa am loo xam ci biir bi lay génnee saaru comme estomac lay nekk day peer diggante estomac bi porte la day ubbeeku su ubbeekoo boo waxee day génn ci bakkan yi wala mu génn ci gémmiñ loolu ñuy wax mauvaise haleine am ñoo xam seen poqotaan yi seen yaram yi ñooy am xet dañuy bul fu ñu toll loolu lépp ay xeetu jàngoro la ay microbe la yoo xam ne ni su nit ki ñëwee ci ñun ñu xettil la dimbali la faj la ba nga tàggali kook lu mel noonu hmm. loolu suñ borom bi dañu cee dimbali bu baax a baax léegi ñi lay woonoo naan la sama yaay dafa feebar te maa ngi réew mi nangam nangam mu tane mënul dox bu baax xeet googu loo ci mën nag ki nga xam ne yaayam dafa nekk réew mi te moom nekku fii te yaayam da dafa bëgg yaayam wér su ma woowee téléphone ma seetal ko par téléphone bu fekkee ne ni ki nekk Italie la ki nekk ci biir réew tubaab yi ba Amérique man mën naa la consulter ci wàllu téléphone ne consultation téléphone bi inscription des consultations distance la tudd waaw léegi inscri bu ma lay inscrire ci consultation bi dafa am ñaari tur yu ma lay jox tur sama doom Mass Ndiaye wala tur keneen si samay secret oh. secrétaire koo xam ne ni buñ la joxee turam ci lay defalee li ñu wax inscription des consultations distance après ñu seetale par téléphone gis nga consultation téléphone bi. maanaam amul ku ma ci gën a ay ci àdduna bi. ah yaa ci man man non waxuma maa ci man sax. waaye képp koo xam ne ni man dama lay consulter ci par téléphone. sa tur rek nga may wax ma wax la la ngay dund moo xam tawat ba ni mu mel. nanga koy dundee yaram ba situation yi jafe-jafe lépp maa lay ko wax soo toogee jàkkaarloo ma nit lépp laa lay wax bi ci des nag balaa may tëj ñu wax ci wàllu Facebook bi Facebook bi dañ ma pirate te dama bëgg dimbali ñi nekk bitim réew. waaw moom li ñuy lekk seen xaalis ñi nekk Sénégal ñi leen di nax naan mooy Serigne Bassirou Ndiaye. juróom-ñetti at mu huit ans. ñu ni yoo xam ne ñu ngi pirate compte Facebook bi di ko utiliser te man aw ma pass Facebook. pour ma wax nit ñi ne leen pass Facebook aw ma ko képp koy dem ci Facebook bi. da nga gis boo bindee Bassirou Ndiaye Serigne Bassirou Ndiaye njaay Bassirou da nga gis samay photo da nga gis samay lépp gis li nga xam ne mooy liggéeykaay bi lépp lay def. nga jàpp ne man la boo ko joxee ba pare mu booleke la dootoo ko jotaat nga jàpp ne man la tudd man kon ñi nga xam ñooy sama mbokku taalib yi nekk ca bitim réew nañu bu ñu umpale ne sëñ Bassirou Ndiaye bàyyi leen xel ne moom amul page Facebook amul compte Facebook ku dem ci Facebook bi nag kuñ lekk sa xaas yaa tooñ sa bopp yaa tooñ sa bopp koy ko gërëm ku may sant ko gërëm mooy yàlla sama borom subhanahu wa taala mi ñu moom ah. te bu ko neexoon wax ji du àgg fi la koy da koy arrêté ci ñu tàmbali moom mi ñu bàyyi ñu wax ko ñu ngi koy sant te ñu fi ñu yàgg fi lool te di santaat nag samay ñaari waajur yi ki dem yàlla ne ko yàlla xare na muy ustu jama njaay mi nga xam te lu ma doon ci xam-xam ci moom la lu ci rafet moom la lu ci ñaaw man la di ñaanal sama waajur bu jigéen bi Fatou Bintou Diagne mu yàgg fi loolu te te yaay neexul yàlla bàyyi ko fi te ñaanam yi doomu aadama yëpp jot ko ndax du bàyyi kenn adduna bi ñëpp lay ñaanal sama yaay àdduna bi ñëpp lay ñaanal kon ne ko ñëpp ñaanal mu yàgg fi te wér di ñaanal ñaari soxna yi ci kër ga di maam Marème Cissé ak soxna Seynabou Silla maa ngi koy ñaanal yàlla may ko wér ak gudd fan bàyyi leen fi sàmm leen te aar leen di ñaan yàlla may ñu njaboot gu barkeel sama digganteeg ñoom ñoom ñëpp njaboot gi gën a barkeel di ñaan yi personnel entourage bi nga xam ñoom ñoo nekk sama ginnaaw. Mm-hmm. Elha Elhas Diop ak sëñ Makhtar Mbacke ak ña mas sama doom ñoom ñëpp groupe personnel bi yëpp maa ngi leen di nuyu di leen ziar. di ziar tamit bu baax a baax a baax sama sëriñ sëñ euh, euh, Muntaxa mu sëñ Basiru Mbàkke sama xarit euh, maanaam sëriñ Abo Mbàkke mu sëñ Fallulu di nuyu ba baax a baax yi tamit ki nga xam ne ni moom mooy sëñ Amsa mu sëñ Siyo bi Mbàkke maa ngi koy nuyu bu baax ak sëñ Fallu mu sëñ Murtala Mbàkke ñoo jàkkaarloo maam sëñ aboo ngi nii benn mbedd moo dox seen diggante sëñ Fallu bu sëñ Murtala mu foofu la dëkk mm-hmm. côté bu soriwul daal ci ginnaaw sëñ Fallu bu sëñ Murtala ah. maa ngi koy nuyu si ginnaaw ginnaaw soriwul daal li wérte wóor ñoom ñëpp samay xarit lañ ñoom ñëpp samay soppi lañ ak tamit euh, sëñ Mourtala mi nga xam ne ni doomu sëñ Fallou la tamit mm-hmm. kii kee doomu sëñ Mourtala la kii doomu sëñ Fallou la voilà muy rakk euh, sëñ Abou Mbacke ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen ziar bu baax baax a baax mm-hmm. lu weesu ci loolu tamit di am cant rek ak sama mbégte sama soppe ku ne xam na ko. Mm-hmm. mooy kan. borom makaarim al axlaq. Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy sama soppe. sum soppe sama lépp di yaa rasulilaay di nga xam ne ne mooy borom Kaaba ga. Mm-hmm. moom mooy borom Midina. ñu ñaan yàlla moom mi ne ca bayritu oor ba ah. suñu borom bi yokk ñu yokk taas ñu ci ay leeram ak ngeneelam ak mbaaxam mu dal ci jaam yëpp ku fi ku fi toog ba heure bi rek ah. sëñ Tuubaa tax ak Seydina Muhammad ak ak ak gaa yu baax yi fi jaaroon yëpp kon nag nañ ko njëkkee ci Rasulullaah sallallaahu alayhi wa sallam mi tax ah, mhm. ku ne boo amee sëriñ ku ne boo amee ku waajur bu baax rek Rasulullaah tax nga ko kon lépp dañ koy teg ci loxo Seydina Muhammad salaatu wa salaam mu joxoñu ko suñu borom subhanahu wa taala mu yóbbante goo xam ne mooy xeetam gi jullit yëpp a ngi koy sant jullit yëpp nga koy ñaan di ko di di di hmm. am tamit mbëggeel ak sopp goo xam ne amul fu mu yem sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf hmm. euh, sëñ Bassirou Ndiaye di ñaanal tamit euh, sëñ Mountakha mu yàgg fi loolu te ànd ko wér di ñaanal sëñ Abou Khalif sëñ Fallou mu yàgg loolu te ànd ko di ñaanal tamit sëñ Mam Mor Sam ak sëñ Mam Mor Mbàkkem sëñ Fallou di ñaanal tamit sëñ Jili Fata Falilou Mbàkke di ñaanal tamit sëñ Abdou Karim Mbàkke suñ wëllëre suñ ak lépp euh, borom makaarimal axlaax ak ñoom sëñ xaadim ak ña waa kër sëñ Abdou Karim Mbàkke yëpp gis nañ ñaan yi mu ngi ñëw ñu ngi kontaan bu baax a baax ba di jaajëfal képp koo xam ne que tamit yaa ngi yëngatu ci diine di yëngatu ci lu baax te bëgg lu baax ngir Sénégal jëm kanam bu baax a baax bindal yoon bu mujj ci biir émission bi sëñ Bassirou Ndiaye 77 871 46 46 77 871 46 46 77 825 98 72 77 825 98 72 boobu moo am whatsapp 33 871 09 72 33 871 09 72 Serigne Bassirou Ndiaye soppe na bi nekk croisement Kër Massar boo génn Dakar mu féete la ndeyjoor euh, mu féete sa droite noonu ci ndeyjoor bi lu tolloog 200 mètres rek bu dee Touba la mi ngi nekk fi jàkkaarloo ko sëñ Aboum sëñ Fallou yu tali 28 bi mu fay faral di nekk alxames nga diis ko si soxla lu mu ci mën mu def leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul na lépp di jaajëfal tamit ki ma solal di Sam Couture nekk ca site Asegna Derklé Mamadou Ndiaye Diop 77 645 01 73 77 645 01 73 di jaajëfal équipe technique bi ñu àndaloon di jaajëfal euh, Mohamed docteur Wade bu Derklé ak tamit Baye Massamba Diop bu am saak ummi kan ca Derklé di jaajëfal tamit Petit Sow P GS Gawsu Sow nekk ca Castor wala mbuur wala Derklé euh, wala cees fu mu ci mën di doon rek domicile yu bari la di jaajëfal tamit soxna May Diop nekkoon ci réalisation bi di jaajëfal tamit waa Tektal boutique Dame Diop ak Oumou nduur sëñ Basiru Ndiaye tegtal ñu gën ko yaatal xewal dikk loraa nga dakk ngay solati ab sëñ Basiru Ndiaye bu rafet bi ah.